combat la. waaw xam nga sama diggante ak Modou ay adversaire lañ. mais en dehors de adversaire ay ay doomu ndey lañ ay sénégalais lañ tey mu dégg sama problème mu ñëw ba prison bi ànd ak ay nitam yu baax. gaa yi génne ma fi ma nekk dama Modou moo la seet si. affaire bi nag surprise ma jëlee ma kaw parce que mu sama xalaat ne moom dina teew foofu noonu yaa ngi dégg mu ñëw. ay kilifaam jóg jox ma loxo nuyu ma ñaanal ma ma mais attends ma est-ce que réellement je rêve ou pas c'est ou bien ñu toog mu ñëw jóg fi mu toog ba ci biti jox ma loxo ñu toog ci di ma ma explique problème bi numéro papa. Pour mu ak dama yaakaar ne acte boobu mu def même Modou Lo bu joxewul ñaar dërëm na acte boo xamante ne mënu ma ko fàtte. Mm. parce que ku jóge ba Lac bu Rose. Mm. nga jóge ba Lac Rose bàyyi sa yitte yëpp jour boobu kenn xamul loo waroon dem dox ji. Mm. amoon nga yeneen yitte. nga jóge Lac Rose ñëw ba cent mètres seet si ma sa mbokkum jullit bu def loolu ah naa ne boo génnee war nga ko mën a sant gërëm ko ci act boobu mu la defal noonu. loolu dafa sedd sama xol bis ay 5 heures du matin lay jóg barke yonente yalla mohammed di julli di ko ñaanal parce que dafa sedd sama xol limu def non di nga bëri tek Modou bon wax mu làmb moom ah, sama ak mom euh, lool benen benen affaire la. Ah, parce que li nga wax ni nii ah. nit defal la lool ak ni nga wax ni est-ce que néegati nga tour crochet Modou wa xam nga lool and and and and door ba làmb la. xam nga dafa am làmb. yaa ngi dégg ak yo xamanteni ni bokkul ak làmb. loolu làmb notre gagne-pain la. dañuy ñëw yaay gis ku nekk taxaw waxanteeg moromam lu baax xëy ñu dugal la ci biir terrain ñu xeex bu ñu paree lu baax loolu ñu indiwaat ko tegaat ko. lan ñëw ba ci yow seet si la ànd ak ay kilifaam. xol bu rafet lan nga ci xol bu rafet jullit noonu la war a mel xolam moo rafet. Mm-hmm. moo tax mu def loolu. mais mbir yëpp ñu leen di sant di leen